yàlla mm. boo fa demee il faut nekk c'est c'est des personnes d'horizons divers mm-hmm. am nañu ci domaine yëpp de compétence yi ñi ngi foofu en matière d'économie et, et comme son nom l'appelle conseil économique environ euh, conseil, conseil économique, économique social et environnemental mm-hmm. war nañu mën a dialoguer foofu mm-hmm. yàlla y conseil du dialogue social mm -hmm. qui regroupe l'ensemble des, des syndicats war nañu mën a dialoguer absolument yàlla y a conseil pour les collectivités locales foofu mën nañu dialoguer entre les collectivités locales et l'État mais entre les territoires eux-mêmes absolument foofu yëpp ay cadre institutionnel la yoo xam mën nañ fa dialoguer mhm. mais li may ragal mooy dialogue bi comme l'année 2020 sera une année très dure euh, il y aussi le fait que le front sociale est en ébullition mm-hmm. euh, jàngalekat yi accords yi ñu signé woon ak ñoom respecté wuñ ko là également man pour man ñi ngi wut des ressorts d'amortissement de ce sociale social qui va arriver loolu. kon moom dafa bëgg a ci ginnaaw dialogue national ginnaaw dialogue national bi. Mm-hmm. parce que koo xam ni euh, pour moom sur le plan économique sur le plan social euh, sur tous les plans il a déjà même euh, pour euh, les ressources naturelles. Mm-hmm. pour la gestion des ressources naturelles sur euh, la gouvernance am na plan Sénégal émergent boo xam ni moom jusqu'à l'horizon deux mille trente cinq te du ci dindi dara kon li ñuy dialogué foofu lan lay jariñ après mais c'est là aussi la ñu il non la responsabilité de l'opposition non pour dire na ko ba ca dialogue boobu téye ko mais mais defal ndànk defal ndànk euh, man j'ai donné les instructions à, mon parti wax na waxtaan nañ ci sur l'audit du fichier. d'accord naa loolu dialogue politique ensuite ensuite ensuite euh, li ñuy xaw a euh, soupçonné. Mhm. troisième mandat ou pa est-ce que du ñu wut consensus foofu pour faire sauter le verrou euh, de la limitation des mandats. ci dialogue national bi dialogue national bi on ne sait jamais on parle aussi. euh, de la nomination du maire de Dakar. waaw par décret. par décret. ça c'est loolu recul démocratique la. quand même mais mais même su même le verrou des deux moo gën a nekk recul démocratique. Mhm. tous les deux. mais moom faalewul recul démocratique ba mu ñëwee ba tey ci loolu lay dund parrainage bi recul démocratique la woon. Mhm. bulletin unique avancée démocratique la. et puis organiser élection yoo xam moo gën a moyen cher. ba pare gën yomb ci organisation. mais loolu lan moo ko indi président su ma gisee man les hommes politiques conviction yi ñuy am buñ julul nguur parce que li nga may wax nii ci bulletin yi léegi ma dalal naa ko mu défendre ko dalal naa ko tamit ba muy wut muy wax ne mode de scrutin assemblée nationale dañ ko war a changer pour dooleel assemblée nationale loolu yëpp mais nga ñëw. confort boobu nga fa fekk yooyu yëpp système bi doo ci laal dara au contraire danga koy hmm. gën a empirer la moo koy indi ci homme politique yi. c'est vrai c'est vrai man man je l'ai euh, souvent décrié xam nga le mode d'élection des législatives et des locales ñoom yëpp benn la parce que boo gisee la liste départementale au plan des élections euh, euh, comment dirais-je législatives. Mm-hmm. raw gàddu boobu. moo am ci ci ci élection municipale yi mm-hmm. kooku man yaakaar naa ni dañu toll ci foo xam ni dañu war a def suffrage direct élection suffrage direct des maires mm-hmm. et des députés tout au moins ñu def élection à deux tours mm-hmm. pour les mairies et pour les législatives dans un département s'il y a par exemple euh, je ne sais pas PDS premier Bokk Gis Gis deuxième hein ñu def deuxième tour pour ñu xool ñu xool mais loolu mooy démocratie après majorité génn mais da ngay gis que jiitu am quarante pour cent non du ko am du du mat quarante pour cent trente pour cent soixante dix pour cent yëpp naa ki ko ki ki ki ci topp am euh, trente huit pour euh, du moins euh, vingt huit pour cent ainsi de suite donc loolu loolu mënul génne démocratie mhm. il faut que ñuy avancer vraiment man yaakaar naa ni président Macky Sall su ma ko doon xelal dinaa ko ni defal li Abdou Diouf defoon en 92 dajale nit ñi moom li mu déstructuré sur le code électoral sur tous le processus d'ailleurs électoral mu def ba def ay avancé même bu amee dauphin mën na am dauphin mais élection yi na jaar yoon mu génn par la grande port am woy pour pour ëllëg parce que nit ki day foog du làmb troisième mandat nit ki day sàmm ëllëg foog nga ne du làmb troisième mandat déggoo li ma wax ma ni bu ma ko doon conseillé loolu laa koy wax mais yow est-ce que yow sax xalaat njortoo ne moom nu muy doxalee kuy wut troisième mandat la euh, am na si ñu koy joxe hmm. parce que dama ni koo xam ne yaa ngi sa dernier mandat Euh, da nga war a consa euh, concentré wu ci liggéey bi ñu la dénk te bàyyi politique hmm. mais politique bi la gën a def ko liggéey bi parce que bu fekkee ne amoo premier ministre ministre d'État hmm. chargé des affaires présidentielles je ne pas kooku presque euh, boîte à la mais lettre ba fa mu jëm ku koy liir du fa nekk mi ngi tukki bis bu jot du toog ci réew mi kan président Macky Sall te presse bi waxatu ko ba ñuy wax Ablaye Wade tukki teele Touba. mais kii moo daxa tukki Ablaye Wade mille fois du toog une semaine bu mat fii ci Sénégal. ah du toog une semaine bu mat man dama naan xalaa ñii danañ danañ ñu tëxloo euh, <laughs> sirènes yi. parce que parce que bu bu bu bu ñibbisee. Ah. boo toogee le lendemain le surlendemain ñu jaaraat ñu ni dem na. te vraiment te doo xam lu muy wuti euh, Sénégal nekk na réew moo xam ni war nañu seet aussi parce que damay dégg nit ñi plaignant yi mhm. sur la route des Almadies fois les gens restent trente minutes une heure de temps ñu bari tali bi te lim koy def dafa bari bu fekkoon ni par mois la koy def mais chaque semaine chaque semaine ñi dëkk Almadies mën nañ ma témoigner mhm. chaque semaine mu def ko Euh, de toutes les façons ku mel noonu pour man signe boobu la mais pour man du def troisième mandat parce que constitution bi dafa régler lépp dafa am lu ñuy comparer te te te te te bokkul euh, dañuy comparer Wade en 2011 kaawu Wade ak Macky Sall dafa différent mais dañ ko jaxase dafa mel ni benn jurisprudence la ñu bëgg a def ci kaw wadd mais wadd bu ñu fàttalikoo en 2001 euh, dafa changer constitution te loolu day écraser tous les art les articles mmh. de l'ancien de l'ancienne constitution dara existeetul mu dotewu d'une nouvelle constitution mmh. constitution boobu mu dotewu Euh, mën nañ ko mën nañu wax ni le principe de la non rétroactivité duñ ko ko appliquer mhm. parce que c'est une nouvelle constitution mais le cas de Macky Sall c'était pas une nouvelle constitution il a changé quelques articles de la constitution, de la constitution mmh. et surtout sur la durée mais aussi bien pour l'ancienne constitution mmh. que pour euh, la nouvelle de Wade mmh. Euh, les deux mandats étaient inscrits là aussi moom sax dafa ñëw renforcer le deux mandats yi. Mm-hmm. ni nul ne peut faire plus de deux mandats daf ko renforcer. mais bu ñëwee taxaw na la man sama premier mandat bi bokkutoon parce que bii sept ans la bii cinq ans la looy wax. non mais mais mënu mënu ko parce que uniquement li li tax mënu ko. mais Macky wax mu dañ nag du la bett yow. oui da d'accord mais xalaa góor benn yoon ngay juum wala. <laughs> mais <laughs> juum na fi juumati waat ah. ah, mais mais bi yoon yaakaar naa ne du juum. <laughs> du juum du juum. Ah, mi ngi ñi ngi seet nag beneen voie. te yaakaar naa ni bii yoon. bu demoon fële. conseil constitutionnel yaakaar naa ni bi yoon nag wax dëgg yàlla. pour l'honneur pour l'honneur dinañ mënul nekk candidat moo tax ñuy wut beneen voie pour sauter. mais gëm mais gëm nga ne conseil constitutionnel bi dina wax loolu. man gëm naa ko gëm naa ko. mais conseil constitutionnel bu xëy suba teel nela xalifa Khalifa Sall àtte nañ ko ba mu jeex kon mënul doon candidat nga toog deux jours président de la république ñu fal ko. ñu ne ko pour nga gracier Khalifa Sall mu ne Khalifa Sall mun ñu ko gracier parce que daf dafa dafa daf rabaa dare man ne ko mais yaa ngi wax le contraire lu conseil constitutionnel wax loolu tax ma ne <laughs> man. mais mais <laughs> xam nga. Sénégal.